nañu aljanna mu neex ñu gis malaayika yi jàpp ni ñoo leen ëpp personnalité ndax ñooy dem ci yàlla ak ñëw iblis jaar foofu ni leen garab gii ñu leen tere suñ borom dafa xam ne boo ngeen ko mosee da ngeen doon malaayika te bu bu bu te boo ngeen ko mosee da ngeen fi sax bëgguñ bëgg a doon malaayika ak bëgguñ bëgg a sax te xéewal googee ñu tàmbali woon ci la leen jaare ba xiirtal leen jax-jaxee leen bañ mos garab ga waaye bañ ko lekkee rek lañ daal di gis seeni awra te jëkk loolu kenn du ci gis sa awray bopp kenn du ci gis sa awray moroom la alxuraan nett leeni iblis fa waswasa lahuma alcheytaan li yubdiya lahuma maa wóoriya anhuma min sawaatihima wa qaala maa nahaykumaa rabbukumaa an haadihi shajarati illaa an takuunaa malakayni aw takuunaa min alxaalidin wa qaasamahumaa inni lakumaa la min annaasihin waaw nee na mu jax-jaxee leen ni leen ba ba ba wuññe lañ leen suturaal loon ci seen i awra ni leen seen borom terewu leen garab gii dara taxu mu tere loon ko lu weesu bañ bañ ngeen nekk ay malaayka baa ngeen sax fii daal leen di waata ni leen dama leen di labira noonu aadama ak awa fàtte ni iblis seenub noon la ñu daal di tàbbi nag ci fitna yi seytaane lekk ca garab ga ni ma waxee woon léegi bañ ko mosee rek la seeni awra wuñu ko ndax kenn ci ñoom dawul gis sa awra yi bopp dawul gis sa awra yi morom te ca saasa lañ gis ni kenn ku ne daal di gaaw gis ni sa sa awra bopp nga sa awra yi morom nga ñu daal di jëkkante dem ci xobi garab yi di wat di di di gaaw di di seet nuñ nuñ nuñ uh, seen awra yooyu waaye la ko jëkk لكو سوت رالون سوت رشون برام لون ساخم نیم نام سانگه وینگو اندرا تا دنیگس سن آوری بب دنیگس سن آوری مرام لولم وای موت هم یه دالی تامولی دیوات تخم بگرابی دی مو دیکو موره سن آوری جوجنگیر وینی کو وو آوری یو وینی کوچی نم يالن لا وخرنا دا نقول علم انهكما عن عن الاكل من الشجره من تلك الشجره دا تريو مالن ون لك غرب غوغو néewuma leen ndax néewuma leen woon seytaane seenum noonu la noonu aadama ak awa daldi yëg euh, njuumte bi ñu def yëgit tàbbi giñ tàbbi ci bàkkaaru mooy yàlla daldi toroxlu ñaan seen boroom ne sun boroom tooñ nañ suñ bopp ci mooy giñ la mooy ak woote gi ñu wuute ak say ndigal kon nag ñi ngi lay ñaan nga jéggal nu te yaram nu ndax bo nu jegalut jéggalut yërëmoonu de danañ bok ci way perte lolou moy li suñ borom di netti ci alquran ni fa huma bi ghururin falamma daqa shajarata badat lahuma sawaatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna mooy bañ se garab ga rek seeni ñaawteef dafa dal di feñ ñu tàmbali di jël xobi garab gi diko sangé sàngi seen awra wa naadihuma rabbuhuma alaman hakuma an tilkuma shajara ndax terewu ma leen woon garab googu wa aqul lakuma inna sheytaana lakuma aduwu mubin qaala rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin loolu mooy aaya bi suñ boroom leeral loolu kon dërs yi di ñëw dañ ciy waxtaane jéggal gi yàlla jéggal aadama ñaawteefam boobu waaye nag génnee gi mu ko génnee ci aljanna mu ñëw ci kaw suuf ak lañ jànkoonteel ci suuf yëpp ni ay dërs la yoo xam ni danañ ko jàngat seet lañ ci war a mën a déggal lépp ñu jàng ko insha allahul malikul xudus billahi min alsheytaani arrajim wa inni uizuha bika wa zurriyataha min alsheytaani arrajim rabbi auzu bika min hamasati alshayatin وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي